Ousmane Diop président ODCAV Thiès. waaw donc champion ligue bi euh, mën nañoo wax ni euh, am na réussite am na échec parce que euh, dafa am benn promoteur boo xam ni El Malick Seck moom moo xalaatoon projet bi ñëw soumettre ñu ko parce que moom dafa jàppoon nii il peut faire du business dans a nawetaan li ma am na aspect positif parce que moom jàppoon na ni pour que champion ligue mën a dox. il fallait que am ay terrain yu baax donc loolu la ñu indi ñu profité gazon stade Maniang Soumaré gazon champ de course même su dee c'est pas le meilleur gazon mais jàpp nañu aussi li fi nekk actuellement nii moo gënoon li fi nekkoon donc pour man loolu déjà c'est un point pour en plus que Thiès dañu problème infrastructure lañu am mais beneen mooy ñu engagé ASC ci un protocole bi ñu signé ñu dem ba ci biir malheureusement le promoteur n'a pas pu respecter ses engagements donc ñun on avait ñaari possibilités soit ñu ñu topp promoteur bi à la mais loolu su ko defoon mooy nawetaan day arrêté parce que soo intentee projet en justice projet bi day taxaw le temps que la justice maintenant tranché or comme on dit le temps de la justice n'est pas le temps des hommes ou bien ñu ñu ñu def une rupture à l'amiable ñun maintenant ñu mun a continuer bi loolu ame mange j'ai convoqué les présidents d'ASC ak les présidents de ñu toog man leen voilà la situation et les gens de manière responsable ont compris que ni au ASC mun ñëw fool ba egsi fii ñu arrêté nawetaan yi ñu def leen médiation am ay nit yoo xam ne aussi ay bonne volonté dañ jugoon ci dugg ci dañuy wax médiation pour que ASC yi nga xam ni aujourd'hui ñu woon ci compétition bi ñu ñu ñu dàmp leen pour ñu mën a continuer mais ba ma fay waxee ni aussi le promoteur euh, loolu ñu defoon noonu il n'a pas encore respecté engagement mais teewul ñun ñu woo ASC Milan Milan on retourne à la phase classique on continue à jouer les matchs maintenant ASC yi comme ni ñu ko doon su match bi jeexee ñu seen retourne continuer de finale organiser la xamni loolu de cave mu nekk loo xam ne sax peut être fañ ko xalaat doon kawe suñu njort donc noonu la demee mais ñun du ci dugg lu ñu promoteur bi wax ci projet bi jàppoon nañu bu ñu ko defee les ASC en profiter largement parce que vraiment sur le plan financier danañu am gain bu malheureusement moom aussi euh, jàppoon na ay sponsor da ci am sponsor yi ñëwuñu donc il a mu génne sa propre poche mais dafa dem ba ci biir xam ne affaire bi aussi a préféré ñu arrêté ñu ko ne li ñu doon def. waaw respecté wul que euh, li ñu waxoon mooy. Euh, ay nit ñoo demoon dox ak moom donc mu waxoon ñu ni dina débourser deux millions cinq cent pour ñu tàmp ASC nga xam ni defoon nañu engagement parce que aussi xam nga champ waaw déedéet pour pour dañ ko waaw dañoo bu nekk li war a am mu nekk deux cinq cent parce que aussi xam nga bi ñu waxee champion dañ ne bi am cinq millions ASC bi gagné am deux millions cinq cent chaque phase am na looy am donc am na ASC yoo xam ni leb nañ xaalis am na ay soo xam ni engagé ay dépenses ay joueurs yoo xam ni jàppoon nañu ni bu ñu eggee ba foofu loolu ñu am na leen permettre ñu régler seen problème mais yàlla def na loolu egguñu ci ay say posé problème boobu donc ñu xool lu jaaru ñu ne nañu xool vraiment lu jaaru ñu waxtaan ñu ne boo ñu amee deux millions cinq cent dinañ ko jël séddale ko ASC Dessone ñi nga xam ñoo doon facilité affaire bi dem waxtaan ak promoteur ñu signé benn protocole boo xam ne aussi moom moo ko signé d' accord na ko ba joxoon date mais aussi defu mais euh, man bi fa amee aussi woo naa leen. ne comme affaire doon dama leen di yóbbu ci dama ko yóbbu ci yoon mais xam nga Sénégal lañ nekk Sénégal moom à chaque fois nga na ngay def dem ci yoon nit ñi nañ ci woo di ci wax ba yow nii nii nii nii encore loolu promoteur dina engagement respecté wu ko mais teewul nawetaan commencé waat na nit ñaa ngi football vraiment amuñu problème ci loolu. essayé aussi ñoom xam nañ ni problème bi du ci ñun xam nañ ci promoteur bi la moo tax aussi ñoom comprendre nañu te topp ñu ñu loolu. loolu si vraiment dama ci ci profiter ci fii pour vraiment la grandeur des présidents d'ASC parce que ñoom aussi mën nañu cee contraindre mais problème amee suñu waxtaan ak ñoom comprendre nañ ñu certainement aussi comprendre le promoteur moo tax les gens ont passé l'éponge ñu ko ne def ko ci loolu mais jàpp naa ni pour man en gentleman le promoteur mais aujourd'hui devait faire ce geste là pour que ASC aussi ku nekk mën a am benn loo am pour mën a régler plusieurs waaw donc nawetaanu 2000. saisie commencé na donc ñu ngi commencé formalité administrative depuis le 15 juin donc ci la ASC def démission ci la ñuy def euh, euh, réaffiliation affiliation donc loolu ñu ngi jeex le 31 juillet le premier août nañ commencé compétition yi donc compétition ñu ngi commencé par la coupe du maire je crois que Thiès depuis plus une dizaine d'années coupe maire la ñuy ubbee nawetaan yi donc moom la ñuy joué ba le 22 donc mu jeex ñu commencé championnat donc mais ci biir période boobu aussi dañuy xam ni ci la ONCAV organise phase nationale yi Thiès participé ci région bi yóbbu woon euh, benn équipe senior ak ñaari équipe cadette jàmm gën en ak déggoo bu Tivaouane en cadet donc yàlla def jàmm gën ñu éliwu quart de finale huitième de finale déggoo Grand Thiès ñoo jëloon coupe bi daaw ñu rempile jëlaat ko ren donc def double bi donc bi ñu dellu see fekk coupe maire bi jeex ci lañ enchaîné ak les phases de zone cette année la particularité mooy ñaari stade la ñu am au lieu de trois donc ASC nga xam ñoo nekk biir commune Thiès dañu répartir ñaari stades yi cinq zones nekk ma Maniang Soumaré quatre zones nekk champ de course donc muy neuf zones mais ODCAV Thiès en général vingt quatre zones ñoo ci nekk donc yeneen zone bi ñu ngi dans le département ñoom ñëpp commencé nañu muy Diène Siraax muy Xombal muy Touba Toul muy Pout muy Kayar Suun Diender euh, ñëpp commencé nañu def seen compétition et pour le vraiment tout se passe bien sûr xam nga bu njëkk dañoo woon ñetti stade donc boobu foo ci ñetti stade ak rythme bi ñuy joué nii boo amee ñetti stade lay gën a gaaw donc ren ñu am ñu am ñaari stade il est évident que ni euh, normalement dañoo war a gën a yéex mais cette année aussi il faut dire que ni mois d'août bi ñaan perdre beaucoup de temps ndax taw yi mais macha allah vraiment taw yàqu lu bëri donc pour le moment malgré ñaari stade la am mais ñu ngi ci rythme nga xam ne ci lañ daan nekk bi ñu amee ñetti stade waaw. donc biir commune bi am nañu quatre-vingt-quinze ASC mais ODCAV yëpp yëpp boo ko dajalee ça fait deux cinquante ASC mais quatre-vingt-quinze ñooy ñooy ñooy compétir au niveau de la commune de Thiès. waaw c'est vrai que loolu bëri na même ñun xam nañu loolu bëri na parce que comme ni nga ko waxee Thiès kon cinquante deux quartiers et normalement dañoo war wax une ASC un quartier mais aujourd'hui am nañu quatre-vingt-quinze ASC. mais sur les quatre-vingt-quinze ASC e aussi il veut dire que y' a quatre ASC e yoo xam ni ñu ngi football commune Thiès mais bokkuñu ci commune mais ay circonstances ñoo leen mais boo gisee aujourd'hui aussi ASC e yi gën a bëri euh, la nawetaan entre deux mille cinq ba deux mille quatre deux mille cinq ba deux mille euh, astafurlah huit traversé na ay crises ñu gis si Oncam gis si Oncam premier juillet gis on Oncam quinze juillet loolu pratiquement moo indi prolifération ASC parce que. danga naan gis parce que nawetaan normalement dañ ni ASC ñaar wala loolu texte dañ koo tere mais xam ne structure yi bëri na soo de bëggee boo ñëwee structure bi ñu def réconciliation bi aussi ñi bëgguñu woon laal ASC na ñoo xam ne dañoo ay proposition man ci laa bokkoon ne ASC yi nga xam ne existé wu nañ avant la crise dañ leen maintenir ASC yi am ci biir crise war nañoo mën a am mais nit ñi ne vraiment comme nañu juboo bu ñu dara donc loolu indi ay protestage ASC maintenant le problème mooy loolu ñun on en est conscient bu doon suñu sago ASC dañuy wàññeeku mais malheureusement amul lenn loo xam ci texte yi permettre nañu ñun ñu jël ay décision di wàññi ay ASC li ñu mën mooy waxtaan ak nit ñi pour ñu retrouver et je crois que aujourd'hui am na ay changement parce que aujourd'hui gis nañu ay ASC yoo xam ni amoon nañu fusionné boo jëlee exemple Guney tey Normandie tey ñoo nekk Grand Thiès boo jëlee jàmm euh, bokk jom jàkkaarloo ñoo nekk EBJJ et cetera et cetera am na donc atomique aujourd'hui amoon na atomique renaissance atomique donc loolu am na amoon na mbuur un xale yi ñu regroupé wu te gis nañ ni l'avenir est aux grands ensembles donc aujourd'hui ñu ngi waxtaan ak dirigeants yi mënoo leen forcer la mais waxtaan ak ñoom jël conscience ci loolu pour vraiment xool et ñun à chaque fois que ñu gis ni am na koñ boo xam ne nit ñaa ngi waxtaan pour dajaloo ñun on fait tout pour encourager pour loolu mën a mën a sotti pour accompagner nañ ci waa xam nga pour man loolu c'est un faux débat parce que violence ñi dañoo jàpp ne nawetaan ak violence ñoo ànd mais man analyse bi ñu ci def ñun dañuy violence aujourd'hui c'est un fait de société parce que violence fépp la am politique bi am na violence religion bi am na violence association boo gis am nañ violence mais du ñu ne nawetaan amu ko am na ko mais c'est pas l'apanage du nawetaan dafa nekk loo xam ne ci société bi la nit ñi bokk di ñëw indaale ko mais aussi ñun on fait tout pour éradiquer loolu parce que nekk na xam ne benn taar boo xam ne dafa nekk ci ñun ba nit ñu taxal ñu ko donc nañuy def duggalati ko donc nawetaan euh, je crois que macha allah Thiès amuñu problème boobu mais loolu ko indi mooy d' abord la sensibilisation mais aussi les sanctions parce que on sanctionne positivement comme on sanctionne négativement parce que ASC e aussi def nga lu dul loolu que mënuñu lu génn la ci pomme parce que dama ni li ñuy def nii nawetaan su mënta dajale ay nit sport la su mënta dajalee ay nit. mieux vaut ñu arrêté ko donc li ñu def ñun mooy même ci texte yi boo ko xoolee y a beaucoup d'articles dans les textes yoo xam ni dañoo def tout pour contraindre ASC pour bañ a indi violence moo à chaque fois que violence am ni ñu lay jël ay sanctions sévères et aujourd'hui nawetaan dañ sax léegi bu ñu la sanctionné pour violence il faut nga toog au minimum les deux tiers de ton de ton de ta sanction xam nga mu njëkk da ngaa gis benn ASC toj ay vitres yàq ñu suspendre nawetaan commencé par ay relation gars yi àjji la mais léegi texte bi dañuy bu ñu la suspendre il faut nga dégg les jéete de ta peine ma joxol benn exemple par exemple daaw am na ASC boo xam ne Thiès def na ko c'est le cas de Bour Dépôt dañ ko suspendre 5 ans donc 2015 la ko def 2015 la ko def suspendre ko 5 ans donc normalement 2020 la la sanction bi di jeex mais aujourd'hui warul mën a demander grâce tant que 2018 jotul il faut que ko may 3 ans soo ko mën a dugal grâce su ko dugal ñëw ren defuñu le tout pour ñu kii mais texte yi moo ñu ko tere ñun. donc loolu je crois aussi contrainte la boo xam bu ko ASC xamee donc li gën a wàññi violence aussi loolu ci la bokk mais ñu xam ne aussi violence c' vrai que am na nawetaan du amu ci mais c' pas un fait du nawetaan c' un fait de société ñun ñoo war réfléchir pour xool nan la def ba dindi violence boobu parce que aussi le Sénégal n'a jamais été une société violente mais cette année mais léegi tamit ba gis nañu société bi da ci am Sénégal bu ñu ne loo xam ne fait mais aujourd'hui doo doo doo lire information doo bi am journal boo xam ne gis ñu ci ay agression ça veut dire que donc c'est pas le nawetaan mais donc ñun la société sénégalaise ñoo war a toog waxtaan lan mooy cause yi ñu xool maintenant nan lañ koy fajee mu mu dañ ci lépp dañ ci football bi dañ ci société bi dañ ci réew dañ ci politique dañ ci fépp mu nekk ay exemple waaw final départemental bi xam nga nawetaan moom dafa nekk acte boo xam ni c'est des activités classiques euh, Euh, dama boo xoolee pratiquement Thiès moo fi am innovation mooy ce qu'on appelle la nuit du nawetaan boo xam ne dañ ko def chaque année e loolu tax na aussi vraiment que ñu am ci euh, remerciement ORECA pratiquement Sénégal yëpp parce que à chaque fois que le président Lonkaaf génn ci télé bi danaan Thiès mooy le premier ORECA du Sénégal kaaka loolu su koy wax aussi peut-être par rapport ak Thiès innovation yi ñuy def cette année dañu woon encore dinañ def nuit bi mais dañuy changer format bi xam nga mu njëkk dañ daan ñëw invité nit ñi sargal et cetera mais on a pensé aujourd'hui que au delà de loolu war nañoo mën a dugal ay thèmes yoo xam ni c'est des thèmes de citoyenneté c'est des thèmes de développement yoo xam ni dañuy wut ay conférenciers ñu mën koo introduire mën cee waxtaan mu nekk loo xam ne aussi nit ñi mën nañu daje mu nekk ay cas de réflexion parce que au delà aujourd'hui de football rek la nawetaan aujourd'hui les gens théorisent les ASC de de développement pour que jeunes yi nekk ci ASC yi au delà de football bi ñu am ci a que loolu aussi bi comprendre na ko moo tax président de la République initié ce qu'on appelle une ASC un projet loolu je crois wax na ko à conseil des ministres ñun def nañ ñoom leen ñoom lañ ci xaar maintenant joxe le feu pour ñu xool maintenant nañ def je crois que loolu su amee aussi dañ gis gën ni ji nekk ci nawetaan aussi au delà de football am nañu xarañ boo xam ni mën nañoo def leneen lu dul football waaw li may mooy di remercier ñëpp. parce que euh, cette année 2016 bi nekk nii mooy sunu dernière année ci mandat bi ñu nekk nii donc saison bi jeexee la nawetaan du Sénégal va au renouvellement parce que contrairement à ce que les gens pensent nawetaan moo nekk structure boo xam ni à chaque fois que mandat yi jeex les gens dañuy dem renouvellement nawetaan amul copte aujourd'hui nous allons tous président ONCAV ba président zone retourner dans nos ASC ku nekk xool ndax sa ASC wóolu na la pour mandat la nga ñëwaat donc ci loolu lañu lañu ne mais balaa ñu eggaguñu foofu ñu ngi ñaan yàlla vraiment saison bi nekk saison jàmm je crois que Thiès ñëpp cité nañu comme exemple que nawetaan dañ koy organiser dans les délais jàmm am ci donc jàmm jooju la ñuy ñaan ñu ko commencé bisimilah rahmaani rahim jàmm ci li may peut être déplorer rek mooy aujourd'hui euh, au niveau de la commune de Thiès retard bi nga xam ne malheureusement nos commune am nañ ko par rapport a subventions des ASC e. parce que tey aujourd'hui hui may wax yow nii nous sommes le 19 septembre. le 19 septembre euh, ASC am na ñoo xam ni ñu ngi seen avant dernier dernier match amul benn ASC boo xam ni aujourd'hui jot na subvention au niveau de la commune alors que bi nawetaan di commencé on a rencontré tous les maires waxtaan ak ñoom exposé leen ñoom ñu jox ñu ay engagement mais malheureusement boo ñuy wax ak yow nii amul benn engagement bu ñu respecté loolu dama ci pro di saluer les maires yi nga xam ñoo nekk dans le département parce que tey boo jëlee les ASC qui sont dans le seen maires yi seen commune aujourd'hui amul ASC boo e xam ne nekk dans le département jotoo subvention zone jotoo subvention sa commune lu ko mën a expliquer man vraiment man mun ma ko comprendre parce que bi ñu rencontré les maires ñoom ñëpp dañoo jox ay échéances su ma jëlee kaaw bu mairie nord dama jàlloo na ñun au plus tard le 10 août dina génn nous sommes tey le 19 septembre Aliou Sow subvention bi ñun xam nañ ni génn na ñu ngi ci loxo ça doit faire plus de deux mois pourquoi joxe ko ko xam mais yooyu dafa nekk yoo xam ni pour ñun c'est comme si quelque part ñun dañuy négliger la jeunesse te dama leen wax leen sport compétence décentralisée la ñun ñooy organiser mais ñoom ñoo yor moyens yi xam nga aujourd'hui joxuñu subvention teewul ASC yaa ngi compétir ñëpp xam nañ ne daal aujourd'hui ça coûte très cher les ASC sont dañuy jënd ay jours ay deux cent trois cent mille or subvention yi donc loolu nga joxe ko ce n'est que symbolique mais aussi day wan ni maire bi yëg na ay jeunesse am mais su ko deful aussi dañuy jàpp ni yëgu wuyu mais loolu dafa nekk loo xam ne rafetul suñu diggante ak ñoom d'autant que man je peux comprendre je peux sax mu nekk ñeneen mais tey soo jëlee maire yi nekk Thiès boo jëlee par exemple le maire Aliou Sow nga jël le maire Lamine Lamine Diallo ñooñu c'est des produits du mouvement c'est des sportifs man jàppoon nañ tey ñoom bi ñu nekkee maire mouvement nawetaan ak mouvement sportif a dem ci kaw malheureusement ce n'est pas le cas dañ koy déplorer mu nekk loo xam vraiment métti ñun ak ñu ma ñoo bokk dëkk bi nit ñi dañuy ñëw ci ñun ko wax man les ASC soo bëri président dañuy def si dañuy dem marche dama jàpp ni jaru ko ñoom xam nañ li war a def defuñu ko mais de toute ñëw ñu xam loolu donc loolu vraiment nekk loo xam ne man métti na ma trop parce que ñu daan njëkk jot subvention lañ mais ren malheureusement ñu nii am na ay soo xam ne football lañ ba toog jotuñ subvention donc loolu vraiment dafa nekk loo xam ni dañ koy ñaawlu mais aussi di leen lancer un appel pour que ñu xam ni loolu. du nekk loo xam ne ASC dañ koy ñaan dañ koy saraxu mais c' est inscrit dans le budget donc dañ ko war a jox ASC su dee amu fi nit ñi xam amu fi mais xam nañ ne am na fi parce que aussi ñun am nañ bu ñu nekk ñun ci mairie lañ nekk nekk ci ci ci ci ci ci conseil municipal yi xam nañu li xew ci mairie ak li fa ak li fa nekk ñun xam nañ ni ils peuvent bu yàgg doon des subventions je ne critique pas du ma wax ni baraam am na lu ñu war a door ñu ko def dama ne xam nañ ñoom ils ont les moyens de le faire bu ko defee ñu ko ñoom ñoo ko xam. de toutes les loolu dañ koy wax ni ñu dégg ko et que vraiment ku nekk aussi jël sa responsabilité ci loolu. looy euh, donc dama leen di xam nga damay ma man ni presse su ñun dañ koy tiitaroo ñun waa nawetaan bokk parce que euh, li li li li presse bi di def ci nawetaan amul benn presse bu koy def au niveau du Sénégal loolu vraiment même ñi nga xam ne dëkkuñu Thiès damay wax ne dañu koo ñëwee parce que je crois que tey nawetaan am na ñoo xam ni damay wax ne ñun ñoo ko yor di ko gérer. mais ñun créé wuñ ko am na xam ñoo ko fi nekkoon tey jii peut-être seen xol mi ci nawetaan bi mënatuñoo ñëw mais presse bi tax na ils suivent en direct la xew loolu vraiment c'est tout à l'heure de la presse dañeen ci dañeen leen ci gërëm di ñaan aussi vraiment que seen i projet yéen ko xam li ngeen mën da ñaan ngeen mën ko ëpp en tout cas li ñu souhaité mooy fi nawetaanu Thiès egg presse su bi dépassé ko ba aussi ñoom aussi nekk une presse vraiment de euh, euh, xam ni nit ñi c'est vrai que bu ñu juddoo yàggul mais il s'est frayé un passage vraiment dans la scène médiatique et li yokk aussi intéressé na nit ñi parce que aussi nit ñi aujourd'hui kenn du leen forcé lu leen neex la xool lu leen neex kenn du xool mais je crois que aussi ligne bi nga xam ne moom la Thiès 24 tracé vraiment c'est une boo xam ne nit ñi d'accord nañ ci ñu koy suivre et ñu continuer ci loolu